asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen nuyu di leen siyaare nu fa yéene ànd ak yéen ci jotaay bii di al muridiya ci seen seen bii di Masalik TV al muridiya jotaay la boo xam ne des na ci waxtaane lépp lu soxal yoonu murit rawatina ki nga xam ne moo ko sos di Cheikh Ahmadul Xadim danañ ci waxtaanee it ay eh, mbindam eh, ak ay leeral yoo xam ne danañu ko mën a jariñoo bu baax a baax ci ubbite gi nag dañuy tàmbalee rek waxtaan ak tudd tuuti lu jëm ci ak murit eh, ci boppam mooy lan ndax jamono toll na foo xam ne ñi ko dëgmal ñi dëgmal yoonu murit bari na lool waaye it dëgmal googu eh, xam-xam da ko war a lal bu baax a baax ndax nit ki lépp lu muy bu di ca dund di ca dugg bëgg koo dund loola da ko war a xam bu baax a baax kon nag jamono laaj na ñuy fàttali ak murit ak di ko leeral di fàttali it cëslaay ak keno yi nga xam ne ci la ko sëriñ bi teg ak ni mu rëdde lii mooy ak taalibe kon loolu lu mat a waxtaane la lu mat a e, soññee la ak a baatu murit e, baatub arab la e, ñun taalibe yi lu ci baree bari ci baat yi nga xam ne baati arab la tañ saxoo koo wax day mujj sax mel lu dëkk ci sunub làkk boo ne baatu murit rek day mel ne sax murit léegi baatu wolof la fekk murit li mu firi ci wolof mooy ak taalube rek ab taalube mooy ab murit baat bi nag jóge ci baatu al iraada al iraada di firi na mel baat bu ne nag ci arab dañ naan baat bi bu dee da nga koy firi ci kaw làkk wi rek mooy baat sàngam bu dee da nga koy firi nag ci déggiinu waa nàngam lu mel ne da nga koy ci déggiinu ahlu tasawuf lan mooy murit boobaa da nga weesu baat bi ne baat bi mooy al iraadatu nammeel waaye nag danga ca wax ne mooy jullit boo xam ne dafa sóobu ngir mën a am boroomam wala jullit boo xam dafa soobu ànd ak sëriñ bu mat sëriñ ngir mu yeggale ko ci yàlla kon eh, jëmmi primi ci ni ko waa ahlu tasawuf déggee mën naa mënees na ko firee noonu boo dee jëmmi baat bi rek ci làkku arab moom mooy al iradatu nammee lay firi murit mooy aji namm ji mooy loo xam ne nag du lu bees ndax dañuy jàpp ne eh, sëriñ bi nañ koy waxtaanee saa su nekk ne daa ñëw ngir yeesal eh, diine lislaam kon ñam àndal ci woote murit googu eh, da leen a bëgg a melloo da leen jubloo melal ni saxaaba yi jiitu ci diine meloon nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa jàpp nag saxaaba yooyu ci boppam ñoom ay murit lañu woon ay eh, ci ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy seen sëriñ bi nga xam ne ni moo leen yeggale ci yàlla kon du ñëw ba jamono jii rek ñu ne am murit rek mu mel ne luy doora a yees Serigne Touba it ci ay mbindam bu waxee murit jubluwu ci taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci moom waaye déggin wu yaatu la maanaam bu yaatu la mooy bu ne murit mooy koo xam ne nii dafa eh, jullit buy sellal soobu yoonu yàlla ànd ak sëriñ bu mat sëriñ ngir mu yàggale ko loolu ci mbindam saa bu ne murit rek loolu lay wax bu ne tariqa yi lu ci bari day wax tariixu mustafaa sallallahu alayhi wa sallam yoonu yónnate bi sallallahu alayhi wa sallam rek lay wax euh, su ko defee nag lay firndeel ne ñoom saxaaba yooyu sax ay murid lañ woon am na euh, bis euh, waa Qurayshin di sàkku ci yónnate bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo bëgg di toog ak yow di waxtaan ak yow waaye nag ñii ngay toogal daal wax dëgg yàlla dañ leen a xeeb ñun arab yi xeeb nañ leen xeeb goo xam ne waruñoo jotaay ak ñoom kon boo mënoon fexe ba dàq leen ñuy jotaay ak yow loolu moo ñu gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xir gi mu xir ci euh, yéefar yi màkk yi doon ay jullit tax mu am xalaatub doxale noonu ko euh, waa Xuraysh sin sàkkoo ci moom waaye alxuraan ko sunu borom dane ko wala tadrudi alladina yad'una rabbahum bilghadaati wala ashiyi yuriduna wajha euh, bul dàq ñi nga xam ne dañuy jaamu seen borom di ñaan seen borom guddeeg bëccëg te ñoom dañoo namm jëm yàlla ji gis nga yuriduuna wajha yuriduuna baat bi daa ñëw foofu ci al iradatu lu jógee ñëw foofu ci tëggiinu fi'l mudaari' waaye mooy rek mooy delluwaat ci al iradatu ba tey ñoom ne ko ñooñu ñoo ñi nga xam dañoo bëgg seen jëmmi seen borom jëmmi seen borom moo tax ca biir mu di ko daxaar sax naan ko na nga muñ jaxasoo toog ngay toog ñooñu nga xam ne eh, dañoo bëgg yàlla dañuy jaamu yàlla ba bëccëg ngir bëgg jëmam wasbir nafsaka maa alladina yad'una rabbahum bil ghadaati wal ashi yuriduna wajha kon loolu lépp euh, day firndeel li ñu waxoon ne buñ ne murid du lu bees waaye dañuy jàpp ne sahaaba yi ci boppam ñoom ay taalibe lañu ay murid lañu woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di seen sëriñ bu leen di gindi di leen wamat teg leen ci yoonu euh, sunu borom di leen yeggale ci yàlla sëriñ si nga xam ne ñoo fi ñëw ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ay wu ay ay way dono lañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy jul jël mbooloo ànd ak ñoom di leen tarbiya di leen teg ci yoon wi nga xam ne ku tedd gi sallallahu alayhi wa sallam ci la tegoon saxaaba yi bañ am seen borom sëriñ si it ñëw dondu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël taalibe yi àndal fas yéene taalibe yooyu dondu euh, saxaaba yi moo tax sëriñ Tuubaa bi nga xamee ni woote yoonu murit Euh, métti di tàmbali ak tiis yi ba taalibe yi ñenn ñi jaaxle sëriñ bi da leen di wax wax ne saxaaba yi ñooy seeni baay ci diine kon loolu di firndeel ne euh, aju gi giñ aju ci moom da koy jël wékkaat ko ci aju gi saxaaba yi aju woon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak nit ñi euh, ànd ak moom su ko defee nag sëriñ bi moom ginnaaw bi mu jiita jiitalee boppam liggéey bi ba yegg foo xam ne ni set na wecc ci lépp lu dul noona sunu borom setal na ko wecc ta takkaayee ko lépp luy xeetu ngëneel dondloo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saahiran wa baatinan mu dond ko sëriñ bi nag daa di woote nag ne képp koo xam ne nii bëgg na li ñu bëgg képp koo xam ne nii bëgg naa yegg ca yàlla képp koo xam ne nii bëgg na yiwu àdduna ak alaaxira na wéeru ci man sunu borom diggal na ma ma leeral ne képp ku bëgg yiwu àdduna ak alaaxira na wéeru ci man ba nga xam ne gaa yi wuyu si nañ ko it mu awale leen ca ngir ma nga xam ne ca la saxaaba ya awoon te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam awale leen ca kon loolu ab tënk la boo xam ne moom la ñu jataay bi bu ñu dellu see nag tàmbalee dugg ci yoonu murit lan mooy cëslaay li euh, fan la yoon sosoo lan mooy kenu yi lan lañ mën a jàpp ne mooy mooy mooy principe bi yoonu murit ak yin ca mën a jàngatee ba génne ci liñ ci mën a génne su ko defee jëmmi Serigne Touba ji it ci ay mawduat yu wuté manam ay ay tem yu wuté ci jëmm dunduk sëriñ bi dess na ci dik lool lepp am jangalé la dess na dikkit ci mbindum sëriñ bi na ci walu xasaay yi njariñ yi ci nek ak euh liñ ci mëna lim ci njariñ xasaay yi li mu làmboo loolu lépp bu ngeen do bu ngeen dé top seen jotaay bi di almuridiya da ngeen ko ci fekk inshallah allah noo ngi tàggatoog yéen wa rahmatullahi wa barakatuh وسلم مهال له وأعلى اليقين